ndeysaan gis nga indépendance yi lim ci dëkk mënuma la ko nettali ndax njëlbéen nga dañu defe ne woon ñépp nii lay mel ba faw faw noos bi xaalis bi chef d'état africain yi kenn ku nekk ak sa modd Senghorey seen tubaab Houphouët mooy seen seigneur Sékou Touré seen révolutionnaire euh, wul dadaay seen saas euh, euh, nu mu tuddati euh, kuruma mooy seen apôtre ñi amee di di wicci geenu nag ñi amee ay yet yoo xam ni mara day taalib fu ne ñu daje fa daje prestige ba xëy alko ba xëy alko parce que it boo dee naan nguur ba nguur xëy naan la nga alku boo ko lool rek la Senghor sax ku muus la am na yu mu daan doxal négritude file coow coow coow almazneja almazneja waaw المزنجة مفعلة من الزنجة da ngeen di jàngat seen laamiyatu la faal waaw waaye fekk na mës na ja jiitu na yàgg na